البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من فيه le 27 décembre 2007 le 27 décembre 2019 fukki at yu teg ñaar di fukki atu naqar ci xolu bépp taalibe bi sëriñ saalihu mbàkke doonoon doomi seexul xadim radiallahu anhu ak soxna faat jaxate feeñ jamono ci atum 1915 ca waaye génn àdduna 2007 ci Touba doonoon suba goo xamante ne suba njàqare la suba tiitaange ñëpp yeewoo ndoo déggandoo xibaar bu doy waar bile asamaan si di jooy suuf si di jooy jant beeg weer wi sax sa ngéem da koy jooy waaye nag si yàlla sunu borom subhanahu wa taala waxoon na ni kulli nafsin sayaxatil mawti ba mu ko waxee ñun ñëpp sunu ay xel ak sunu ay xalaat ñu rombale woon ko jëmm ju màgg jooju di Serigne Saliou waaye malaaka moom dafa lu dul ndigal jëfe ndigal la ci jëmmam ju sell ja moo tax sunu xol yi di ko jooy bett ñëpp nag ndax yërmaande jum ñu ambaloon bokkoon na ci ay kàddoom wax ju sell ji asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu maa ngi nuyu jaam yëpp ñu bokk ci biir maa ngi nuyu sama mbooloo mi taalibe yëpp mu taalibe yi murid yi maa ngi fàttali sama bopp di fàttali sama mbooloo mi jaam yi di fàttali sama mbokki taalibe yi li ñu fi andi li ñu fi bàyyi yàlla sama borom ñu fi gànnaaw bi maa ngi tuub. sëriñ Saaliw doonoon jëmm joo xamante ne boo ko ne jàkk sam xel dem ci yàlla sunu borom subhaanahu wa taala ndax ragal yàlla ga ak maandu ga waxoon na ne lu dul lislaam aw ma yàq aw ma defar sëriñ Saaliw bépp xool bu nar a texe bëggoon ko lool ñëpp soppoon ko mu ëmbaloon yërmande jaam ñëpp ñu bàkke woon ko jëmm joo xamante ne moom moo am yërmande ba di ko wàccee ci bàyyi ma ak njanaaw yi sëriñ saaliwu xaroon ay tool sëriñ saaliwu xotti woon ay tool ngir tàmmal taalibe liggéey waaye daan ñaq di dunde di jëmm joo xamante ne déggoon fiq lool mokkaloon alxuraan lool bëggoon xasiday sëriñ tubaay yi lool ba boo ko daan jàng ci kanamam ñaari daf daan tuur ay ranxooñ ngir xol bu sedd ngir kawe gum kawe suñu boroom sëriñ Saaliwu xel yi ak xalaat yi koo gis ci àdduna la muy ñaan mooy yàlla dajale kook ngërëmal sëriñ Saaliwu bu def la sëriñ Saaliwu waxoon ñu wax ju juy wane ni mën naa fàdd suñuy bët waaye absence am duñ ko mës a sentir ndax toujours mu ngi ci biir waxam jurey jile ah, da ko def may ko jaam yëpp amul soxla tab bi jeexal te bëgg ko laaj yaa ma su ko jaay lu gën a lu laaj ko ak sant ko daa ko jur mu sant ko jaamu ko ak mu sant ko maa ngi sant sant leen ko jaam yëpp day fàttali nag moom boo yàlla sama borom di ko jégalu danaa yàlla sama borom xéwale ñu nga xam ne moom moom moo ko jàngale ba noppi digg diggu ko laaj tam bu lu jeexee ci bëgg am bu dul jeexee te bëgg ko laaj mu koy laaj mu ceeg njëriñ ak yokk dimbali dimbali suñu diine lislaam yi fekkoon seen ndimbal ma ngi fàttali waxtu yi ma ngi ciy fàttali fàttali asaka asaka yi may waxtu yi la ñëpp faat ñeme ko ñu ko yoon ñeme loolu fekk xaajina fuqaraa loolu fekk fa amilina alayha wal mu'allafati quluubuhum wal qaa'imin fi sabilillah ñëpp dañ koy faral di wax dañuy def nag bu baax a baax nag affaire yi kenn ban wuy fu ñu jëm wuy fu ñu jëm wuy fu jëm ku xam fu ñu jëm nañu ko wax ndax xel yépp ngi xaaxaxal xol yaa ngi xer-xer yi di xottiku ci misère ak xalaat jëme ci sunu maam wéetaay ron xëy ga ku fa dem gis ne ron xëy ga ca boppam ma ngay jooy Serigne Saliou njoowaanam ngaa ngi koy jooy waaye jumaay Touba tamit di ko jooy Serigne Saliou juróomeelu xalifa bu sëriñ Touba ci kaw suuf jëmm ju amoon njariñ ci askan wi ku bëggoon dongoy daara yi ku bëggoon askan wi musta xàmmee buurub buur ak baadoo la jàppe ñëpp ay jaami suñu boroom daan jaamu yàlla ci ñoom lu mu guddi guddi ñu di ko jooy lu mu naaj naaj ñu di ko jooy ba sunu lori xol wow ci moom ndax sopp gun ko sopp moom maam saalimu ay ndénkaaneem am solo lool dalay wax di la tekkil di la firi di la faram-fàcceel wala fi leeroon nañ kàddu ko leeroon nañ daan luy romb ak sidit romb deret romb yàpp yaram ne saraax ci biir xol kàddu yu mel nii jégg yu baax la jé jégg leen sama borom jégg sama borom te jégg jégg leen sama biir borom su ko nga da ngay yéene sa bopp nga yéene ko sama borom da nga bëgg ko jëfante yow nga tàmbalee ko sa bopp te ku ne nga gën a seet la yeyoo nga gën koo seet la la nga yeyoo فإن تبي بنفسك الآلام فاصطحبا به أصحابا فإن سير لا أرض كان كو سير لا وكيو xati yi nga xam ne itam moo yóbbu natt yëpp moo yóbbu natt yëpp moo koy fàttali ci la tudd la bi ay waaye maanaam sa borom bu dee sa morom bu dee sa yéeg dara bëgg a weer sa borom bu dee sa yéeg dara koo bëgg a jégal kon nag mooy borom moom dana fee suñu bopp rek te di ñëpp jégalu suñu borom ñaan mucc gis ko yaay fukki at ak ñaar sëriñ saali wan ñu ginnaaw ci saayir ñu dëkke di ko jooy fu ñu toll dëkke di ko ñaanal fu ñu toll ndax xam nañ ni ñaan buñ ko ñaanal njariñ la ci ñun lay dell si dellusiwaat kon rekk waaye mbokk yi li am solo ba am solo mooy nañuy fàttaliku sunu maam saalihu di ko ñaanal yàlla yokk ay leeram tataas ñu ci barkeem sëriñ saalihu mbàkke اللغو وإنكار المقامات Rafah TV ñëppay dañ agréer